mais avant ñu dugg ci sujet bi dañuy ñaan képp ki nga xam ne nii gan nga ci chaîne bi wala yaa ngi soog a seetaan suñuy vidéo te abonné goo nga abonné ci chaîne bi aimé vidéo bi da wax ñu saxalaat ci commentaire yi sama gars yi aimé leen a baax loolu mooy tax YouTube mën a conseil suñuy vidéo ñi nga xam ne nii abonné guñu ci chaîne bi ñu mën a seetaan suñu vidéo dem ba abonné ci chaîne bi bu dee yaa ngi doog a seetaan suñu vidéo bul fàtte abonné liker partager parce que ça nous aide vraiment yërmande dafa am solo ay buñ la jiitalee rek nga ni bëgg a jaay doole loolu yàlla nañu ci yàlla musal doole baaxul gis nañu ci port autonome Dakar ñu dàq fa lu mat 700 pères de famille loolu du social du yërmande du lu kenn xam 700 personnes nga génne leen ci société ba pare dem tëdd sa kër di nelaw yow ak sa jabar ak sa doom loolu war ngaa xalaat 700 pères de famille yooyu nit day am yërmande loolu du ben social loolu du social du yërmande président directeur port bi bu bees bi wax len ci 700 personnes ken du len arrêter loolu rafetul xaw lo ci djublu waye doko ci am waaw loolu rafetul 700 personnes ken du len arrêter amna ci ño xamante bo len arrêter arrêté du nu fay lu yaas bo len arrêter du du nu du nu dem marché yoyep dang koy xalaat. waaw na ngeen di am social boo jiitee tamit du tee nga am yërmaane nga am social waaye lu ñëw rek nga bëgg rupture totale loolu amul fen ngeen jàppale ñuy sonn ñi ñu sonn ñi dañ leen war di taxaw loolu mooy loolu noonu la ñuy jiitee waaw jiite du doole waaw jiite da surtout réew yi réew yi Afrique yii dafa laaj social bu ci sociale amul rek du dem ñuy am yërmande tuuti sept cent personnes <laughs> Eh, mooy yéen. lañ naan njuumanoo sant mun a wele. sama gaa yi vidéo bi ñoo ko seetaanandoo dégg nañ kàddu yi nga xam ne nii kii di bekkaay mbay yëkkati na ko jëmale ko ci ki nga xam ne nii mooy Waly Diouf Bodiang di directeur port mais na leen dem seetaan vidéo bi nga xam ne nii kii nga xam ne nii mooy Bécaye mbay benn mbër ñëwoon na ci plateau woom di naqarlu métit bi nga xam ne nii Macky sàll doon na ko teg askanu senegal dictateur bi nga xamné ni Macky Sall doon nako doxal biir Sénégal be gay mbay lan la wax mbeut bi na leen dem seetaan vidéo bi te ñëwaat. man rek lay wax. ah <laughs> li nga xamanteni mom lay dund man du ma tricher. dama sama xol dafa fess dama xamni ñi ñu nak ak ñoo bokk nday ak bay mm-hmm. seeni rax kese lañu ñuy eh. seeni mag. yee ma xalaat ni problème bi ben nit kese mo ci mën dara. Mm-hmm. yee muy président Macky Sall mais pourquoi pas mënu libérer sénégalais Sénégal am jàmm. ci eh, mooy si affaire songo bi. non non booy loolu. sànq ñu sax et eh, coupé ma micro bi. waaw ma population yi. non non non non eh na xoolal sa jéego gi na nga koy yemale ci sa bopp. a caan rek ngeen di fuurale tànk. <laughs> sama gars yi bi ñoo ko seetaanandoo dégg nañ kàddu gi nga xam ne nii Bécaye Mbaye yëkkati na ko. ndax gis nañ benn mbër bu ñëwoon ci plateau télévision am di naqarlu Macky Sall yorin bu bon bi nga xam ne nii moom la yore woon senegal nit ñi nga xam ne nii ñu ngi doon ñàkk seen bakkan ci manifestation yi torture bi nga xam ne nii Macky Sall doon na ko torturer sénégalais yi di leen dàq seen place di jàpp ay nit di leen torturer photo leen dugal leen ci page Facebook Anita loolu lépp xew Sénégal am mbër ne dafay taxaw di dénoncer li nga xam ne nii mooy xew Sénégal yow Bécaye Mbaye nga ne ko doo ko fi waxee. dëgg du romb kon tey jii nii yow Bécaye mbay en tant que communication traditionnelle boo waxee nit yi dañ lay déglu askan bi bàyyi la xel yow nga waroon wax li nga xam ne nii mooy li xew di wax Macky Sall dëgg di ko wax torture bi nga xam ne nii moom la sénégalais yi di dundu di dictature bi nga xam ne nii Macky Sall moom la doon teg askanu Sénégal yow waxoo ci nit ki ñëw si sa palaatoo di ci wax nga ne ko doo ci wax tey jii nii yow kooku noonu yow nit kooku noonu nga xam ne ni yaa doon tere mbër bi mu wax li ko nakari mu wax xalaatam ci li nga xam ne nii mooy yorit gu bon gi nga xam ne ni Macky Sall moom la yoroon Sénégal yow tey jii nii yow yaa taxaw ne da ngay jox leçon de moraal ñi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci opposition bi ñu leen doon tëj prison di leen doon torturer ay nit ñëw ne dañ leen di défendre nga ne yow dee doo leen défendre kon tey jii nii yow nga ne yaa leen di jox leçon de morale te 700 personnes yi nga xam ne nii ñoom lañ dàq biir port autonome de Dakar. te ki nga xam ne nii mooy directeur Waly Diouf Bodiang dàq leen ngay nekk di asarne wu ci moom naan ko amoo yërmande du def social dafay nekk di jaay dooleeg yooyu noonu te loolu noonu ngay wax yëpp ci Macky Sall la nekkoon te waxoo ci. kon tey jii nii li ngay nekk di acharné wu ci Waly Diouf Bodiang xamoo ci dara xamoo 700 personnes yooyu noonu ba xam ñu ngi doon xëy si xamoo 700 personnes yooyu noonu ba xam ay fictif lañ ay contrat fictif nag gis nañ fi ki nga xam ne nii mooy Malal Talla fii lañ ko fi fal post boo xam ne nii yëgu ko en direct la ko yëgee kon tey jii nii balaa ngaa yëkkati sa làmmiñ di wax ci li nga xam ne nii maîtriser woo ko demal nga gëstu ji bu baax a baax ndax jàpp naa ne kii di Waly Diouf Bodiang ju jël 700 pères de famille di leen dàq di leen xañ seen liggéey te mu doon ay nit yi nga xam ne nii 700 personnes yu jub leen 700 personnes yi nga xam ne nii mérité nañ seen poste kon loolu bu amoon tey jii nii scandale boobu noonu bu amoon ñun ñëpp ñooy génn wax ne Waly Diouf Bodiang li nga def du dëgg mais Waly Diouf Bodiang ñi nga xam ne nii moom lañ dàq am na lu tax am na raison yu tax mu dàq leen kon tey jii nii yow Bécaye mbay matoo kenn di ko jox leçon de morale. dëgg du ndax tey jii nii askanu Sénégal bi ñu la soxlaa da nga noppi woon ànd ak nguur gi di mos di dem di noppi ànd ak ñi nga xam ne nii mooy nguuru Macky Sall ak ay ministre Macky ay directeur am ndax lan ñoom ñoo doon tooyal say ceeb tey jii nii ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci nguur gi yow boo sañoon du ñu falu mais gannaaw mënoo ci dara yàlla mooy dogal falu nañ yow nag nga ne da ngay jéem profito ci sa micro jéem leen jaxase ak askan bi te askan boobu noonu tey jii nii dofuñu ndax démb fii la leen fekk ñu gis sa comportement gis say kàddu gis ni nga doon doxalee ak say invité kon tey jii nii askan boobu noonu tey moo naan la sa kàddu yi ngay yëkkatee noppil ki nga xam ne nii nag mooy Modou Mbaye sa doom jàmbaar la nag gis nañ ko bu baax ci xeex bi gis nañ ko bu baax li nga xam ne nii moom la porté combat bi ba tey yi nii yàlla andi ñu ci nguur gi ak li nga xam ne nii daj na ko ci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 ah di leen ñaanal di ñaanal opposition bu bees bi. Mm-hmm. nañu opposé tali bi yaatu na rëkkëram monsieur yaa ngi fi liif yaa ngi fi këram na leen yaa ngi fi barricade yaa ngi fi ñu leen ñaan ñu dund lool ci jàmm ak salaam <laughs> yaa na yaa def waaw vraiment c'est bu dee yaa ngi doog a seetaan suñu vidéo bul fàtte abonné liker Partager parce que ça nous aide vraiment.